ci Walf TV leeruk jamono xibaaru digg bëccëg gi li ci gën a fës ñu door ko ak eh, li nga xam ne moom mooy kàddu yi Idrissa Seck jëmale ko ci bilan wu Macky Sall eh, nee na daal ñu bëri ci eh, kondomu Sénégal gi daanaka seen yaakaar dafa tas ci ni mu yoree réew mi Idrissa Seck yëkkati yooyu kàddu gannaaw ba ñu doon amal vote budget bu conseil départemental bu Thiès boobee jamono ki fi nekkoon na jëwrin gi ñu dénk wàllum napp gi ca jamonoy Abdoulaye Wade di Khoureychi Thiam yëkkati ay kàddu kàddu euh, jëmale ci Macky Sall mu bàyyi ñi nga xam te ni mu ngi leen tëj jamono ji euh, dara waralu ko dul mbirum politique ñu bokk kon ci parti démocratique sénégalais yemu ca yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci mbirum terrorisme ak ni ñu ko war a doxalee ci réew mi ngir mu mën a dertu gannaaw wàllum feetu 31 décembre di njeexitalu at mi ak ni ñu koy waajalee ñenn ñi ñoom ñu nga sa bàyyiwuñu dara ginnaaw ngir mën a amal fet gu mucc ayib ak seeni njaboot ñeneen di ay borom kër ne taluñu ko jamono ji amuñu lu ñu feetoo moo tax dañuy toog jàpp ci yàlla dinañ ci ñëw si biir xibaar yi ak kii di Omar Kayre toftal ci xibaar yu ñeel wàllum biti réew kon mbokk yi yi les ponk bu ngeen tax la tuuti ñu daal di ko faram-fàccee. tey la àllarba fanweeri fan ci weeru décembre atum ñaari junni ak fukk ak juróom mbokk yi asalaamaaleykum wa xibaar yi dañu koy door ak eh, yi kàddu jóge ci kii di Idrissa Seck nekkoon maire bu diwaanu Thiès yëkkati kàddu jëmale ci eh, ni Macky Sall yore réew mi ak jamono ji eh, ñi di askan wi daal daanaka nee na ñëpp seen yaakaar tas na ci yorin gi ndax daal dafa mel ni kuy jaawaatle bu bopp njiitu réew ak bu bopp kon ku jiite partem loolu nag mu koo rotal gannaaw ba mu ñu fekkee li nga xam ne moom mooy votu budget bu conseil départemental bu diwaanu Thiès dañuy teewlu Idrissa Seck ay kàddum ya mu dénk kii di Ramatoulaye Sarr. ñoom ñi fi nekk yaakaar lañu ñu diggee woon mais jaaxle la ñu indi est-ce que mën ngeen a xalaat Sénégal démocratie am fi mu toll ak àddina bi ni ñu ñu nawee ñu toog ba nëgë xamuñu kañ la ñuy voté élection présidentielle maanaam calendrier républicain dafa flou kenn mënu la cee wax lenn. avant ñu koy fal ak bi ñu ko falee ba pare mu wër bitim réew confirmer ne dina jële mandat bi ci sept ans indi ko cinq moom moo ko waxal boppam mais indeegu ci benn leeral buy mën a may sénégalais yi ñu am droit ci xam. kañ la ñuy voté jàpp ngeen ni rafet na ci deru Sénégal rafet na ci démocratie Sénégal ñuy jàpp ay journaliste di tëj jàpp ay opposant di tëj maanaam daal Macky ñaari mbubb la yor benn bi marron beige la bu ko solee muy chefu parti APR mu dugg ci langu politique bi ku ko wax dara mu dugg ci néeg bi sol mbubb verte jaune rouge ne la offense au président jaxase boobu rafet na ci deru Sénégal jàpp nit ñi di tëj loolu defoon nañ ni xewwi na weesu na. puisque FMI kenn du ne dañoo soxor moo tax ñu ne Sénégal vingt cinq pays les plus pauvres du monde PNUD kenn du leen wax loolu. bu ñu waxee ñu ne ñu da ngeen di critiquer déedéet ñun li ñu gënal mooy président de la république xam ne situation bi doxul mu dellu ginnaaw jël weneen yoon bu nuppi yokk a waaxu pour mën a saafara jafe-jafe askan wi ci mbirum politique ba léegi la ñuy des addu jëmale ci mbirum terrorisme ak nañu koy euh, doxalee faw nag askan wi yëpp daal di euh, doon benn say xàcceendoo dóorandoo yooyee kàddu jógee ci kii di xure ci caam doonoon fii jëwrin ngi ñu dénk wàllum mbay mi ca jamonoy Abdoulaye Wade yemu ca ndax soññu naak dànkaafu kii du njiitu réew mi mu bàyyi ay ñoñom yi nga xam ni jamono ji ñu ngi leen tëj si kaso bi dara waralu ko lu dul mbirum politique ñu teewlu xure ci Thiam ay kàddoom ak Alassane Diallo. bu doon sama sago président Macky mu décidé tey rek ni ñii ñu jàpp ñu détenu politique lañu génne parce que kat boo bëggee xeex ak terrorisme dëkk bi mënul xaaj def ñaar ñaari camp dañuy juboo ñu ñëpp def lu ñuy union sacrée buñ d'accord ci loolu dinañu mën a jàkkaarloo ak ñi nga xam ni dañuy yàq suñu dëkk parce que ñii nga xam ni ñoo dem France def fa loo xam ni métti na ñëpp au mois de novembre bi le 13 novembre te France kenn ëpp ko gànnaay France kenn ëpp ko sécurité kenn France kenn ëpp ko renseignement ndegam mën nañ def loolu France rawatina dëkku benn Sénégal gii ñu dëkk bu tuuti lañu gànnaay boobu amuñu ko renseignement boobu amuñu ko mais lenn am nañ ko am nañu suñu diine am nañu suñu foi bu ñu juboo suñu biir d' nekk benn ni terrorisme du fi am danañ ko xeex danañ ko mën a réussir tey jilee su fekkee ñu jubóowuñu da nga gis ni dañuy noppi mais suñ juboo nekk benn ku fi bokkul dugg fi ñu ngi benn kii bokk fi de kii lan moo ko fi indi moo tax ma doon président Mbacké Sénégal yi ñu nekk benn ñu bokk defar suñu réew ñii ñu jàpp ñëpp ñu bàyyi leen comme ci concertation dañuy dem plus tard bu ñëpp juboo bu boobaa bu ko neexee mu jël décision yónnee projet de loi d'amnistie assemblée nationale ñu amnistier leen pour que ñoom ñëpp lépp luy droit bu ñu amoon ñu rek ñu jot ak seeni droit pour mën a dugal la scène politique. ñu des ba tey ci mbirum parti démocratique euh, sénégalais ak euh, kàddu ya ñenn ci ay libéraux yëkkat yi ngir bëgg kii di euh, Abdoulaye Wade mu daal di ñëwaat ci réew mi ngir gën a saytuwaat partem ñii di reformateur yi ñoom daal di wax bañ ci ba tëdd ca naaj wa di wax ne daal ñi nga xam ne ñoom ñooy libéraux yooyu dañoo lajj ci seenub liggéey tax ba yooyu kii di Abdoulaye Wade la ko war jamono ji mooy noppaliku Amadou Limbay ci reportage. ay responsable ak ay militant yu PDS di sàkku jamono ji maître Abdoulaye wadd ñibbisi fii ci Sénégal ngir mën a téye saytu bu baax lii di parti mbile. am na responsable bu nekk bu am sañ-sañ ak militant bu nekk bu am sañ-sañ nam Abdoulaye Wade ci situation bi yaakaar ne bu ñëwee dana am lu mu apporter loolu dëgg la Abdoulaye Wade à chaque fois bu ñëwee Sénégal am na lu muy ñuy cee xëy na loolu la ko yàlla cërale dafa fas yéene liggéeye pour réewam di liggéey pour réewam ba fa mu bëgg réewam àgg fa yàlla na ko yàlla may bu boobaa mu doog a noppal. wax ju ni mel nag ñi bokk ci PDS te leen di dippee les réformateurs jàpp nañu ne seen naataangoo yi. moom lajj nañu ci gestion partie bi. ay doomam yoo xamante ni tey ñoo waroon a fexe ba mën a jàkkaarloo ak Macky Sall mën a jàkkaarloo ak régime bi mën a xeex ba démocratie teew fi ñuy woo mag moo xamante ni tey jàpp nañ ni dafa waroon a ferenkulaayu Abdoulaye Wade jaadootul. mu taxaw fii di xeexal ay ndaw yoo xamante ni forme na leen ba jàpp ni mën nañoo demal seen bopp. jamono ji nag parti bii di PDS nekk ci coow mbiicoog mbaaloo diggante ñi ànd ak Abdoulaye wadd ak ñi nga xamante ne danoo taxaw di sàkku ngir ñu soppar ñi boobule parti lu ni mel nag di wane ne bile parti am na jafe-jafe ci ñi ko war a jiite. ñu àddu jëmale ci kàddu yu jóge ci président convention des jeunes reporters yëkkati euh, ci euh, mbirum ay taskutu xabaar yoo xam ne woowoon nañ leen ngir déglu leen ca yoon euh, ci mbirum Lamine Diack yi ñu yëkkati woon ay kàddu moom nag mu koy ñaawlu di wax ne daal mbir yi du dara dul démocratie Sénégal muy gën di dertu gannaaw te mu ngi nag di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñooy njiit yi ñu gën cee bàyyi xel kii di Thierno Dramé kàddu yooyu mu ngi ko yëkkati ci micro Omar Kayre ñu daan wax leadership en termes de liberté de presse Afrique presque Sénégal dafa bokk ci dëkk yi ñuy gën a cité mu doon ay pratiques yoo xam ne yaakaaroon nañu xëy na jeex na fi tey parce que journaliste di def liggéeyam am xibaar bu daanu mënuñu def lu dul relayer ko ak commenter ko parce que commentaire genre journaliste dafa bokk suñu métier ñu def ko mais tey bu fekkee xibaar bu génn ñu comment nga commenter ko ñu convoqué la pour nga expliquer wu finalement euh, liberté de presse boobu dañ ci xaw a jaaxle. te defe naa ni Sénégal soxlawul loolu soxlawu ko euh, ay journalistes yu xarañ ñoo fi nekk ay groupe de presse yu yu am doole yu am am crédibilité ñoo fi nekk defe naa ñi ngi def seen liggéey euh, ci wàllu ci wàllu démocratie ak ci yeneen wàll parce que tey démb gouvernement li mu def may yoon yi ay ay ay toute la presse la salue toute la presse la relayé donc bu ñu gisee ni tamit am na leneen loo xamante ne xaw na ñu foog ñu wax ko maintenant Euh, peut-être que du leen neex mais ci suñu liggéey la bokk donc foog ñu foog ñu assumer ko foog ñu def ko mais li ma yaakaar daal mooy Sénégal soxlawul loolu parce que war nañu dépasser cadre bi te am nañ yaakaar ne xëy na nguur yi bu ñu demee ba xoolaat seen bopp dinañ xam ni jaru ko parce que de toute façon euh, presse moom day yàgg rek mais dinañ wax dinañu relayer information yi dinañ def li ñu wax Kédougou la ñuy wutale ji addu jëmale ci mbay mi ñu bay ba noppi euh, gopp kon seen i euh, kon ba léegi lañu gopp ne fa gàññ ba lu si bëri sax ñu ngi koy faral euh, di ko wanteer ci marché yi rawatina ci ñu jege réew mi ñu tax na nag ba ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi di sàkku fu ñuy jaayee ndax dal amuñu ko. dinañ ci ñëwaat su ñeneen ni jotaayu xabaar ak euh, bu Rama Dabo ca boobee jamono euh, ñu nga fa nekkoon ak kii di Baba Ngom di secrétaire général bu conseil national euh, yu concertation ci wàllum opération des moom mi sàkku nag ci nguur gi ñu xoolaat bu baax mbirum réforme foncière lool nag mu ngi ko yëkkati ay kàddu ca foofee dinañ ciy teewlu su ñeneen ni jotaay xibaar kàddum yooyu ak sodi Soribou Rama Dabo ca noonu la ñuy dem ca banlieue ba di wax si askan wi nga xamante ni ñoom it uh, ñu nga jël seeni kër sanc ko uh, ci foo xamante ni uh, li di tuyau saar yi ñoo fay jaar wàllum pétrole ba ak li nga xam ne moom mooy ay jafe-jafe ndax daal fa ñu nekk mën na leen jural lorange bu fekkee ne rek jëluñu si ay matukaay dinañ ci ànd ak Théodore Semedo suñu neen jot ay xabaar ci reportage boo xam ne defal nañu ko ci mbir mii ñu daal di dem ba ca Pikine addu jëmale ci retraité yi nga xamante ni ñoom ñoo euh, kon lëlu ci IPRES ñuy sàkku ci ñu dindi li nga xamante ni moom mooy euh, taxe yi ci li nga xam ne mooy pension yi euh, te xoolaat bu baax a baax li nga xam ne moom mooy texte yu bu institution yi loolu nag mooy tax seen i mbir gën a mën a kon baax ndax daal ay jafe-jafe mu ngi leen wër ba tey te gisuñu ku ko saafara ba ñu si nag dànkaafu nguur gi kii di Birahim Fall moo ci yëkkati ay kàddu dénk Théodore Semedo ñuy wax ne kon élément bi yembul daañu si ñëwaat suñu yeneen jotaayu xabaar. ñu daal di àddu jëmale ci mbirum feetu 31 décembre di njeexitalu at mi fekk suba ak jàmm lañu ko fa yéene nag màggal ci àddina wërngal këpp ak li nga xamante ni moom mooy la ca ajawoo ak wàccaa gi daanaka njaboot gu bëri jamono ji. ñu ngi ci mbir yi ak wàccaay gu bare bari gi euh, si fum nekk nii ngir kon gën a mën a amal fête bu mucc ayib ak seen njaboot ñeneen ñi moom ñu nga bank seen loxo ndax dañu ko amul euh, jamono ji euh, dafa metti te ñoom daal ñu fête ci reportage Oumar Kayre ak Ibou Ngom lañu ko fësal. 31 décembre ñu war koo màggal fii lu yées ñaari fan. waaye nag mu mel ni màggal googu dana wuuteek nan ko daan defee bu njëkk bu ñu sukkandikoo ci borom kër yi nga xam ne. dañoo jàpp ne méttiwaayu jamono moo ko waral. dëkk bi dafa naqari dëkk bi moo métti nit ñi léegi tal nañ léegi am na leen luñ tal lu dul di noos ndax boo nee boo xëyee ni siiw am kaas kafe boo ndekkee dagg mburu tootal di lekk ay ginaar da ngay yar say njaboot ci loo xam te ni si day day continuer lekk ginaar du par lekkal ba suur ak naan ba màndi biir du fen. ma seet ni bu fekkee tamxarit jot na li ma fi gis ci ay ñu koy génne 31 décembre lu ñu ko def ci ci tamxarit. te nit lu bàyyi lu mu moom di seet yi fi jàmm boo seetee 24 bi am na loo ci sentir li fi doon am amatu fi dindi nañ ko yu mel noonu ku nekk war na ci mën a jàngee leçon jël li nga moom nekk ci bàyyi nit ki moom mu téeku moo gën 31 décembre du suñu feet wute lool xalaat ak soxna Thiam ak mbay du du fay wàdd mii ak Djibril jaañ gis ne ñoom danañ ko màggal comme ni mu waree. ñaari ginaar pomme de terre frite tuuti sauce pimentée doy na. ñaari kilo yu mburu sax boo ko si tegee nañ lekk ba suur rek te nelaw ba ba set. donc ñu bëggal xale yi ndax tamit ne xale ñu daa bëggal yow dafa ay joué normal que nga ko defoon xale yi nga defoon leen bëggal euh, waxtaan ak ñoom mu kër yi li ñu gis moo di ñu xañ seeni doom bànneex bu nu mel mel ni sax kuy tontu ñiy wax naan lii di fête ak 31 décembre moom dafa xew yi. na ba pare feet bi moom fu leen ko fekk. du yàq dara suñu du yàq suñu diine waaw. li amoon démb dañ ko war a jox xañ ñu doom ah faut pas être ingrat quand ñun dañuy dund suñuy dund ñoom dañu war a dund man balaa maa dee ma dégg ñuy taxaw naan àddina jeex na ma ne ko kooku wax. ma ne xale yi bu ñu la déggee nga dee. boroom kër gi nag di woo ay ñoñam ñu xoolaat bu baax ni ñuy doxalee ak maytu sax yenn dépense yoo xamante ni amul benn njariñ. Ah, moi j'invite tous les damay woo borom ah. kër yi ah, ñu bàyyi yàq beeg lu ni ah, mel ay 31 décembre yàq fii yooyu yëpp jaratu ko. des cadeaux plus de centaines de décembre nag nekkoon feet goo xamante ni bu njëkk nit ñi dañ koo respecté woon lool. waaye nag mu mel ni léegi nit ñi joxatuñu ko yitte. terewul nag ñenn ci borom kër yi ñoom namu ko màggal comme ni mu waree ndem sax jamono moom léegi la gën a metti Omar Kayre noppeeguñu ak yow yow la ñuy àndal dem ba biti réew xooli ji xibaar ya fa tukkee ñu tàmbalee yu bitim réew yi ca centre Afrique foofu nag waa réew moom moom commencé nañu voté jëm ci élection présidentielle ba ak législative bi tey ci àllarba ji mu di nag loo xamante ni am na solo lool ngir génne leen ci ñetti ati guute yi nga xam ne ci na nekkoon boole woon nag ñi nga xam ne ñoo di jullit ya ak kerceen ya nekk ca réew moomu ci bangi nag bureau de vote yi moom dafa am retard laata muy tijji huit heures ndax ci juróom-ñetti waxtu ci suba fekkul bureau de vote yooyu sax ci quartier bi nga xam ne moo cinq te musulman ya nekk fa ak ca deuxième arrondissement ba lii nag li ko waral moo di yenn ci matériel yi nga xam ne yembul woon maanaam bulletin de vote yi jëm ci élection législative bi alors que vote boobu waroon na tàmbali ci ba six heures du matin jotee élection yooyu nag lu tolloo tollook fanweeri candidat bokk nañ ci ña ca gën a fës nag di eh, premier ña nga xam ne ñoo fa nekkoon premier ministre kenn ki di Anicet Georges Dologuélé ki koy jàppale nag di parti bi nga xam ne ka fa nekkoon président di François Bozizé moo ko jiite ak martin Diguélé moom mi sax démb ci talaata ji am na soutien bu mag jóge ci milice chrétienne yi anti balakaay ñëw ànd ak moom ngir woteel ko. Paris nag daat nay dëggal ne kii di Sharaf El Mouadane nekkoon jihadiste français bi l'armée américaine bi rey na ko ayu bés bi ñu génn ca siri bokk na ci nga xam ne amoon nañu loxo ci attentat kamikaze ya amoon ca Bataclan waaye nag ba léegi nag bi ñu xamagul moo di digganteem ak Abdelhamid Abawit bi nga xam ne moo di ki nga xam ne jàpp nañ ne moo nekkoon ci kaw attentat yi amoon ca Paris ca fukki fan ak ñett ci weeru novembre Pentagone nag moom démb daat nay wax ni daat nañuy rey fukki ci membre état islamique yi ci jamono jooju sax ci na daal di nangu ci loxoy jihadiste dëkk bi di Ramadi nekk ca Irak état islamique moom fan yi nag ñuy dal ci kawam ndax fukki ci responsable yooyu ñu rey ca Irak ak ci siri waaye tamit daal nay perte Ramadi nekkoon dëkk boo xamante ni moo nekkoon seenug tooguwaay ca Irak fi mu ne nii nag Bagdad li mu bëgg moo di nangu mosul ci loxoy jihadiste yooyu mosul nag di dëkk bi gën a mag te jihadiste yi yor ko ca suufus Irak googu. peine de mort nag mel ni day bëgg a jeex fële ca Californie ndax ca atum 2006 ba léegi amul benn prisonnier boo xamante ni dañ ko tëjoon penn capitale rey nañu ko ci état Californie boobu nga xam ne moo di état bi ëpp ay doomu aadama ca réewum états uni journaliste yi nga xam ne jot nañoo dugg ci prison bii di San Quentin gis nañ ne ñu bëri ci ñoo xamante ni dañ leen a condamné peine de mort ba léegi ñoo ngi xaar seen bés juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróomi doomu aadama yoo xamante ni condamné nañ leen peine ba léegi ñoom it xamaguñu muy doon peine de mort nag bi ñu ko indiwaatee ci 1978 ba léegi fukk ak ñetti prisonniers rek nañ ci exécuté lii nag li ko waral moo di lenteur yi nga xam ne moo aajawu jëm ci mbir moomu ak cheruk procédure d'appel bi lii na leen indi loon ci xibaaru bitim réew yi jaajëf Omar Kayre yegsi nañu ci ponk bu mujj bi ci xibaar yi di li ci yéen kay ñu xëyandoo dañu ci ànd ak Seydina Omar Ba. bu njàpp yàggee gawar feeñ waaye mbiri Lamine Diack mi kat lu muy gën di yàgg ay xar kanam di feeñ Walfadjri yéene kaay ne Amadou Makhtar Mbow mi njiital assise nationale yi wax na moom nee jot na ay koppar yu ci Lamine Diack mu toll ci juróom benn million ak genn wàlle ci suñuy koppar mu jaare ci soxna Penda Mbow bokkoon ci société bokkoon tamit ci ñi gënoon ci assise nationale yi Penda Mbow moom la Lamine Diack jox xaalis boobu leen mu moom la nee na juróom benn million ak genn wàll moom la koy jox mu jaare ci benn xaritam juróom benn million ak genn wàll lañ ko a jox mu jox ko professeur Amadou Makhtar Mbow ñu toogaat ay weer ñu daal koy indilaat yeneen ñetti million lépp mi ngi mu versé ci coffre-fort direct info yéene kaay na ci laaj ak tontu dox ci diggante mag suñu naatangoo yi nekk ci rajo Futur Média moom professeur Amadou Makhtar Mbow wax na lu nekk ngir mën seetal assises yi ne mu waxoon ne assises yi ña koy amal ak ña cay teew ñoom ñëpp benn niseet lañu amee te mooy jëlee ko ci boppi réew mi libération yéene kaay ne nañ ci génne njiitu réew Macky Sall ndax yoonam nekku ca mësta jot benn koppar bu tukkee ci Lamine Diack loolu office muy banqaas bi xeex ger ak alal ji dëggal nañu ko ci diirub ñaari fan ñu téewu Lamine Diack doon ko enquête ci koppar yi ñu ne na ko ci ay atleris amul fenn fu mu ci ñi bataaxal daal di koy yónnee waa OFNAC ngir ñu ubbi ci mbir mi ab l'enquête ndax Lamine Diack kàddu yi mu wax ci kanamu enquêteurs yi ko doon enquête kàddu gënu koy graw ay koppar yu takkoo takko moom la laaj waa Russie ngir mën a daaneel nguurug Abdoulaye Wade gilee benn million ak genn wàll moom la waxoon ne buñ ko ko joxee baax na doy na sëkk ngir Abdoulaye Wade roj ay bagaasam abal ko Sénégal ndax ci xaalis boobulee dana ci mën a financer ay parti politique dana comme ni ko waa forum des justiciables di sàkkoo noonu la ñu koy sàkkoo ñoom it waa OCD yi nañu ubbi ci mbir mi ab l'enquête képp koo xam ne ni laalee nga ci koppar yooyu le nañ la siiwal bu laajee sax yoon topp la nañ ko def yoon amaana du topp Idriss Seck ci kàddu yëma yëkkati ca Thiès daal koy tegate ci ndoddi njiitu réew mi Macky la si yéenekaay ne dafa profité ci ndaje mi conseil départemental bu Thiès doon amal ngir xayma koppar yi a liggéey ci mi mu gis yoon yu mu jël du yoon waa moo waxoon adduna gépp di ko dégg ne bés ci yoonu ndóol moom la teg Sénégal le populaire yéene kaay na ndóol ak jaaxle moom la Macky Sall jot a saxal fii ci Sénégal ci diirum ñetti at yi mu nekk ci bopp réew mi li ëpp ci askanu tey ji ñu ngi ci opposition bi ndax mbetteel gi ñu am ci liggéeyu Macky Sall daf ñoo digoon yokkute waaye ak ndóol la ñu indil diggoon ñu yaakaar tey ji jaaxle la ñu def ñi jaaxle dëgg-dëgg kay ñoom ñoo di agent muy liggéeykat yi nekk ci agence de la sécurité de proximité ASP Zoom Info yéene ndax la ñuy dund mënees na koy méngaleeg dund gu wére yaan fukki junni lañ leen ma wa kenn ñemewu la sëqat ndax boo ne gaa ñi dajale la say bagage ne la ci biti ñoom agent yi ne booy wër ab dictateur ba dajek pap xale bu la yeboo jàppate xam ne ab dictateur pire ngi lu ko neex lay def ba tax ñuy sàkku ci waa OFNAC ak yeneen kuréel yu ni mel ñu jàpp si yàlla ñëw yëddul leen seen kër gi ndax la fay xew doy na waar doy na waar li xew démb ci rëbës lanket yéene kaay ne ay prisonniers ñoo fa rëcc juróom benn ci la ñu woon juróom film prison break ba ñu fi daan seetaan gaañ yi dañoo profité ci heure de yi daal di jaxasoog yi ba ñu demee bay génn ci biti ci leen garde yi ràññee yu metti tukkee ci ñu jot cee jàpp juróom eh, kenn moo rëcc Mansour Diop lay wuyoo ma nga fekk baax fële ca Grand Yoff su naatangooy ne laataa ñu leen di jàpp sonoon nañu lool ñoom garde pénitentiaire yi ndax prisonniers yi seen bakkal lañ ci tegoon am na ci ñett ci garde ñi ñoo xam ni prisonniers a gaañ ngir bañ rek ñu delloo waat leen ci kaso bi Ibrahima Sall ñu gën koy xam ci Ive di ab a jaar rëbës moom nguur gi jëlu kaa ne ab xale bu góor bu toll ci fukki at ñeent moom la ab waay buy jaay aar fekk muy nelaw ci tefes bi mu daal koy yee mu si ko xale bi tiir mu daal koy dugal ci biir almeer yi laata kon moo àgg ci kawam moom xale bi ne waa ji kaa xoñ ngir bañ mu yuuxu jël ab produit bu tax def ko ci ginnaawam laata kon moo àgg ci kawam muy lu médecin chef bu hôpital Abass Ndao dëggal gannaaw bu mu gisee ay gaañu gaañu ci waa centre gindi ngir ñu taxawu ko ndem mënuñoo xam ay waajuram quant à waay ji nag alkaati teg nañ ko loxo bés bu rafet la ñuy xaar ngir jébal ko procureur jërëjëf Seydina Omar Ba yemoo ko fu ñuy ndar keppee xibaar yi di jaajëfal ñi si jàpp ba mu yem kii di ay Aïssatou Diagne Ramatoulaye Sall Diop Ousmane seen soxna Aminta Mbaye ñu leen di jaajëfal yéen nit ci si kóolte bi ndax saa suñu jàkkaarlawee ak yéen mbégte rek la ñuy àndal di kon sàkku ci yéen ci ñaan te it di leen ñaanal di ñaan borom bi nga xamante ni dara teewu ko mu aar ñu làkk ñu fa yàq yeggul di leen jaajëfal bu baax a baax te di leen bàyyi ngeen wéyandi ak suñu ay ay programme jaa ngeen jëf